Euh, daal di ñàkk bakkanam euh, foofu ca pavillon spécial muy wuyoo ci turu Cheikh ñas ñii di waa Azret nag njor ni moom Cheikh Niass dañ ko daal di fitnaal ñu teew teewlu njiitalu Azret Ibrahima Sall waaw ñun ASRED vraiment ak regret ak xol bu naqari la ñu yëgee décès détenu bi nga xam ne moom la ñuy wax Cheikh Niass ci prison bu Cap Manuel bu Ndakaaru seetlu nañ ne ay sénégalais yu honnête ñi ngi nekk victime de la désinvolture bi nga xam ne moom lañ leen di maltraité ci lieu de privation de liberté yi ci commissaria yi de police te loolu du am benn mucc benn mujjantal du ko du mujje fen kenn du def contre expertise pour li nga xam ne moom la ñuy wax autopsie te contre expertise dafa a am. liggéeyu kuréel gi ñuy wax ONLP la muy observatoire national des lieux de privation de liberté mais ñu am seetlu ne kuréel googu du def dara kenn du leen dégg ci bu mbir yi amee duñ leen gis duñ leen dégg par dañ leen loger biir ministère de la justice te ñemew ñu wax li nga xam ne moom la détenu yi di jànkonteel ci biir lieu de privation de liberté yooyu ñuy ñaan njiitu réew bi mu dissoudre loolu dénk ko ay kuréel yoo xam ne dañu indépendant comme Amnesty ñu dénk leen ko wala ASRED wala RADDHO ñu dénk leen ko ñu mën a sàmm ak ak yelleefu ñi caabi féete ginnaaw ginnaaw donc vraiment mu nekk dee goo xam ne tey na xel te kenn nangu ko te bëgg nañ mbir mi leer ñi ngi demander vraiment l'ouverture d'une enquête judiciaire ci mbir bi voilà mu nekkoon Ibrahima Sall njiital Azret doon addu rek ci ñàkk bakkan kii di Cheikh Niass professeur ñu gis ni nag euh, ki li xamante ni moom moo di Cheikh ñas mooy ñaareelu yoon ginnaaw euh, ñaari weer euh, ci ñàkkoon bakkanam ginnaaw beneen bi nga xamante ni daal nañ ko jàpp foofu ca Missirah ca Tambacounda mu àndoon ak Boy Djiné mu mel ni nag dañuy faral di ubbi ay enquête waaye du mujj fenn indiwaat coow rek jëm ci deux poids deux mesures waaw jërëjëf Diaw bala may tontu ci loolu ma bëggoon rek euh, lii bi ma déggee Hélène li mu wax ni président Moustapha Niasse dafa ñàkk hmm. euh, secrétaire am ma ko koy jaal parce que sama càmmiñ lu baax la donc euh, di ko ko jaal di jaal ay mbokkam yëpp te yan na ko yàlla xaral aljana te hmm. suuf woyof si kawam léegi kii fi ñàkk bakkanam tamit ci anam yi wax dëgg yàlla lu metti la mais wax ji nag mu ngi bëgg poser problème parce que du guleet dama xamul sax am na lu ñu war a seet tamam ci réew mi parce que luñ ñu ñoxar njaay ñun lañ dañ lay yóbbu prison war nañ ko seetaat ak dans quelles conditions la ñu yóbbu nit ñi mm. parce que prison am na ñu fa war a dem ak ñu fa warul dem mais li ci ëpp ñi war a nekk prison ba nekkuñu sa prison ba ñiy def jéyee yu mag yi nekkuñu si prison ba wala bu ñu déggee ñu génn leen mais benn honnête citoyen juste pour contrôle de circulation ñu jëla dugal la fa ba sa ba nga ñàkk si bakkan def naa loo xam dañ fa war a dakk ci réew mi waratuñu ko ni di ko nangu Euh, il faut un sursaut pour ñu arrêter ci loolu. Hmm. ñu xool nit ki bu defee am na yenn infraction bu ko nit ki defee est-ce que jar na ñu gàdd ko di ko un deux trois ñu jël parce que ñun comme li ma wax dañuy vivre toujours comme sur le modèle colonial. Hmm. moo di yow daal nit ki nit ñi euh, rapport administration ak rapport administré yi. situation bu extraordinaire la boo xam ne war nañ ci kawam génn mënuñu après 60 ans d' indépendance ñuy fonctionner comme ba fi administration tubaab bi nekkee di la ni maa la mën ñeme woo wax ñeme woo nangam euh, xale bi ñu wax dafa problème bi mu am dafa doon filmer waa ji bon c' est vrai que euh, dans les dañu war a sax accepter pour man ñuy defe ñuy filmer nit ñi parce que dañu war nekk dans un pays de transparence et de ver parce que yeneen réew yooyu ñuy jógee dañ ko nangu kon fii tamit je ne vois pas pourquoi ñuy tere nit ñi duñu filmer parce que ki fi jëkkoon commence di filmer dañ leen jàppoon tëj leen parce que pour ñun loi wu Sénégal il faut ñu wax ni au nom de quoi parce que bu fekkee ne defaloo dara ce sont des éléments yoo xam daf lay permettre ñu xam kon la relation entre la police war nañ ko def de relation apaisée parce que mënatuñu continuer parce que policiers yi tamit suñu ay njaboot lañu comme ñu nekk si suñu njaboot kon fan la problème bi indi moo di le administratif mooy problème bi parce que kooku nga gis muy policier comporté wu noonu une fois mu simb mbubb mbubb alkaateem ngeen ñëw tase si biir communauté bi mais il se comporte de manière normale kon lu tax ba mu solee mbubb moomu rek mu amaat beneen attitude c'est élément yooyu la war jéem a analyser c'est que ñu on n'a pas une au service de la population mais dañu am administration boo xam ne moom au contraire daf fi nekk comme quelque chose qui est à part moom moo am tous les droits te loolu tamit war na je crois war na fi war na fi jóge parce que frustration yu mel nii suñ ko arrêté wul mooy indi aussi population yi parce que Sénégal temps yi tension yi bari na bari boo xam ni il faut que les agents de sécurité contribuent à faire baisser la tension dans ce pays loolu dafa war a bokk ñu dugal ko si seen jàngat ñu dugal ko si seen ay doxalin parce que fii ñu jëm te ñu ngi kon di jëm ci ay élection tension bi day bari ci dëkk bi ñoom tam bu fekkee ñu ñëw bëgg di yokk ci kar mi xaraw du du war a baax donc daal leur formation war nañ ci dellu si dellu si waat ci règle mais loolu je crois forum civil mi ngi fi ce sont les mouvements ñoom ñoo war a jóg acculer leen ba ñu bàyyi ko fi parce que tamit kii xaleel la njabootam ndeyam ay waajuram euh, euh, yaakaar ci moom ñu jël ko parce que benn bakkan quelle que soit raison bu tax ñu jël ko rek bakkan kenn waru ko faat si bon naa nee nañu nañ xaar autopsie kenn xamul est-ce que mort naturelle la wala du mort naturelle peu importe c'est que kii dafa warul woon dem prison si man ci sama position ci li ma yaakaar. léegi rek day indi waat coow comme ni mu ko waxee léegi euh, ñàkk euh, jëfe li nga xamante ni moom moo di yoon bi ñu daal di ndax enquête yi ñuy faral di ubbi jëm ci loolu maanaam euh, day faral di nasaxaat waaw maa ngi jaale njabootu tey xam nga di ñu ubbee actualité bi dafa nekk actualité bu macabre mm-hmm. Mm-hmm. c'est quand même extraordinaire te metti na trop ci xol parce que ci jaal ngay commencé dégg jeexal ci jaal yi ñu ngi jaale famille ñas boobu yëpp mm-hmm. nga xam ne seen doom faatu na je partage l'analyse de Fatou mhm. parce que man bi ma dégloo ay doomam doomu ki faatu expliquer li xew mais man dama yéemu ci yàlla mhm. parce que contrôle de police sa oto ay kayitam ndax mët naag matul nga fàtte sa carte grise sa kër foog naa am na waruloon yegg ci fi ñegg nii loolu doy na waar mhm. euh, dëkk bi Ñoxor Njaay yóbbu nañ la euh, defeere nañ la parquet euh, mandat de dépôt nañ la loolu il faut ñu seetaat ko il faut ñu seetaat loolu xawma ndax dañ koy seet ci formation ñañ koy sant wala nit ñi ñooy seetaat seen xol yi ak seen diggante ak seen morom yi mais am na plaidoyer bu mag Aziz comme ni ko Fatou waxee boo xam ne war nañ ko mën a def docteur mhm. comme société bi yëpp def ko ñu xamal nit ñi ne ils doivent être au service des populations mhm. ils ne sont pas là pour brimer les populations mhm. loolu war nañ ko xoolaat bu baax lii mhm. dem ci police waru ci woon am ou bien ne nañ la verbaliser jox la kayit parce que moom loolu rek la doon laajte ci li ma dégg verbaliser ngeen ma yéen a ngi jël sama permis bindal leen ma mais on a vu ça et ça arrive da ngay ñëw ñu verbaliser la ki la verbaliser ne la demal Euh, non këyit dañ la jeex na sax. Euh, kayit amul lañ la bindal dañ naan la jeex na yoruñu. loolu hmm. dafa doy waar. loolu du jeex du tay ñii nag suñ jógee bitim réew. c'est vrai ñëw bëgg xala parce que yoon yoon rek la. Hmm. yoon nga dem su tous les cieux yoon yoon la. soo arrêté nit danga koy bindal kayit su police demee nag ba mënatul bindal nit ni kayit. Hmm. ah problème am na. te loolu ça arrive y a des cas nous on nous chaque jour. dañuy intervenir ci ay cas yoo xam ne noo ko imaginer man dama bëgg ñu xool ce cercle infernal la nga xam ne pour Ñoxor Njaay jàpp nañ la euh, menotté la wala jàpp nañ la dugal la ci pañ à salade on après euh, lu ci topp mandat de dépôt moo cay mucc. merci beaucoup moi je pense que ça il faut arrêter ça. <laughs> ok <laughs> non prison non plus de place et puis pourquoi ñuy toroxal nit ñi noonu. Mm-hmm. c'est c'est quand même c'est quand même. inacceptable. merci un père de famille bu jogee ba bitim réew ñëw ne day màggal si. Mhm. te man dégg naa ay doomam ne dañoo buddi sax ay rastaam. Oh, oh. est-ce que loolu am na. man je sais pas si c'est vrai mais c'est mm. écœurant ce qui s'est passé avec cette histoire vraiment di reste moom metti na moom voilà ah. donc Babacar ñaari ponk yi la ñu ah, indiwoon tey xam naa c'était une page nécrologique donc euh, dëgg la dëgg la merci Amadou euh, mm-hmm. c'est une euh, c'est des informations macabres mm-hmm. comme ni ko honorable waxee bon mais lii rek thème la woon je crois mm. que ñaari actu yëpp thème la woon te dinañ ci ñëwaat parce que mm-hmm. il est temps que quand même nos services de l'ordre comme l'administration sénégalaise xam ne dañ leen fee teg pour les sénégalais teguñu leen fii pour abus de pouvoir ah police bu la jàppee nga bañ sax joxe xaalis pour ñu bindal la mais c'est un problème da ngay gis ni ki la jàpp sax day am problème pour bindal la ah bon c'est vrai que George Floyd bu ñu ko filmé wul woon mhm. est-ce que monde bi dinañ xam ne dañ ko rek waaw boobu nag Alentine moom Alentine la xaw ma di wax ma Alentine Aline mhm. comme moo ñu mobilisé woon ñu dem sa corniche ba di manifester pour George Floyd war na mobiliser waat Sénégal yi. quand même il est temps pour ñu manifester pour li ñu dem. non non on est d' accord il est ah. temps que ce combat là soit mené. moom on l' interpelle dégg ah, mu ngi génne waaye defoo lu reyoo ñu la garde pendant quelques heures ñu woo sa njaboot daan ne dégg nga. mais Babacar te c' est pas la première que ces choses là arrivent. Babacar le lu ñu filmé léegi parce que filmu filmu euh, euh, l'ex député bi ñu accusé de de kii. waaw Bouga Bougazeli ah. du ko ko <laughs> waaw léegi ñoom bu fekkee ñoom ñu ngi filmer léegi <laughs> lu tax ñu ba ñu filmer leen loolu la affaire bi il faut ñu régler ko et puis il nañ ko gérer au plus haut niveau d'ailleurs loi bi wu ci mu leer d'ailleurs honorable thème bi ñu jëm parce que ah. wax jëpp loolu la bu fekkee yow euh, euh, man nga joxe euh, xaalis dem amoo problème mais la bindalee lu am te bu ñu la bindalee nga nangu kayit bi pour fay am na toujours un petit mot dañ koy def ci kaw bind bi ñoom entre ñoom policiers yi ñoo koy xam. Mm. bu demee au niveau du commissariat ñoom not boobu dañ koy gis daal lay sonal tegal teg la coono loolu il est temps que les chefs de la police ñi nga xam ne ñoo fi nekk dindi loolu. cet abus de pouvoir là ay nit ñoo xam dañ leen fi teg pour ñu régler le problèmes des sénégalais mais boo fa duggee mel ni yow da nga nekk sàcc wala da nga def loo war a def loolu il est temps que Sénégal yooyu daal fi jeex. donc d'ailleurs bon c'est vrai ñu ngi ci corruption peut-être que est-ce que boo joxee xaalis peut-être tu as de problèmes. bu fekkee da nga bëgg ñu bindal la amuloo problème loolu indiwaat nañu si thème corruption ak guerre il faut ñu wax si donc nañu seetaan euh, reportage bi nga xam ne élément bi ñu Amadou Diaw defal doog a ñëw si thème bi. lii di corruption maanaam guerre bokk na si li nasaxal yokkute ci biir continent bu Afrique ndax si lu toll si téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards. ci xaalisu dollar mu daal di méngoo nag ak 25 pour cent PIB bu Afrique suñu sukkandikoo nag si Financial Afrique si rapport bi mu fësal atum 2019. ngir xeex loole nag gouvernement bu Sénégal daal di taxawal ci atum 2012 kuréel gi di office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC mu mel ni nag atum 2016 ba tey ji nag réewu Sénégal weesuwul jaune rouge mu toll nag ci 67e ci pays ci atum 2020 si rapport bu Transparency International mu mel ni nag réew mi mu ngi wéy di des ci fi mu nekkoon diggante atum 2012 jàpp 2015 ci enquête bi mujj te ñii di waa Afrobaromètre daal di ko amal ci mbooleem ñi ñu dénk seen kàddu nag jàpp nañu lii di corruption bi dafa gën a mu gën wule ñaay nag ci policiers yi gendarme député conseillers municipaux juge ba ci magistrat officiel ca présidence de la république ak ay fonctionnaires yi nga xamante ni dañuy faral di laaj askan wi ay pot de vin mu doon nag seen